bisimillah kon ñu jolli si ca laaj yi mi ngi laaj maanaam diggante maliki yowmi diin ak maliki yowmi diin bi ñu jàng ci faatixatul kitab bi ñu jàng ci faatixatul kitab muy maanaam maliki yowmi diin ak maliki yowmi diin xafsu mooy jàng maliki yowmi diin bu dee warsh day jàng maliki yawmi diin lan moo tàqale ñaari baat yooyu daal malik ak malik dañ koy wax ne ko malik malik yawmi diin boobu dafa jóge ci li ñuy wax milk maanaam tamaluk ak moomeel ku moom dara su ne malik yawmi diin mooy yàlla moom moom bisu pay boobu yàlla moom moom bis boobu nga xam ne ci lay àtte jaam ñi fay leen mooy borom bis ba loolu mooy malik yawmi diin suñ ne maliki nag maliki yawmi diin mooy mulk mooy euh, ziyaada ak càng waaw sharaf mooy nguur maanaam mooy mooy nekk buur mooy mooy mulk waaw bu ne maliki mi ngi jóge ci moom maanaam mulk waaw mooy kon mooy maliki yawmi diin mooy mooy buurub bis booba su ne maliki yawmi diin mooy yàlla mooy buurub bis booba ñu yaate jaam ñi nga xam ne yàlla naka jekk mooy buur waaye mooy buuru bis ba it nag soo ne maaliki yawmi diin mooy yàlla mooy boroom bis ba kon loolu moo tàqale ñaari waxi ni ci maaliki ak maaliki yawmi diin ki ci milk muy tamaluk moomeel lee nag jóge ci mulk muy moo tàqale ñaari waxi ni yàlla moom moom bisub fay ba wala yàlla mooy buur bis ba yaa koy ci gàttal lool rek la hmm. xam naa itam laaj yi mel ne ne foofu la yem ñu ngi jéggalu ñëpp di sant di ñaan suñu borom doole ñu tawfeex ak taysiir waa koy jërë ngeen jëf